محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي Cheikh Ibrahima Sarr Ndiagne kan moo di Cheikh Ibrahima Sarr Ndiagne mi ngi bokk ci ñi njëkk ànd ak ku tedd ki di borom Touba Njaarim ñi nga xam ne moom Serigne Touba moo leen yaral boppam waaye jërëm bu góor moo di Serigne Malick Sarr mi ngi gane jamono moom Cheikh Ibrahima Sarr ci dëkk bu ñuy wax Njaañ ci atum 1850 kon moom moo magee Serigne Touba ñaari at moom Cheikh Ibrahima saar Ndiagne am njàngam bi nga xamee ne jàng na alxuraan ba noppi la daal di sóobu ci wàllu njàngum xam-xam gannaaw bi nag la tàmbalee gistu sëriñ bu ko mën a àggale ci yàlla ci biir gistu boobu nag ci la dajeek Cheikh moom it lu mel ni loolu muy wut moom Cheikh Ibrahima Sarr Ndiagne nuy sëriñu tarbiya bu leen mën a àggale ca yàlla ba ñu mën a jaamu seen borom subhaanahu wa taala ban ni leen dogalub yàlla suñu borom subhaanahu wa taala woo mate ba ci ku tedd ki di Cheikhul Xadim di borom Tuubaa ak njaareem ñu daal di jaayante ak moom booba ba ni mu wàccee ab liggéey moom Cheikh Ibrahima di di borom Tuubaa ak njaareem a xëy ak a ci wut ngërëmul ku tedd ki di Cheikhul Xadim mosula juyoog moom eh, ci dara bokkoon na ci ñi njëkk a ànd ak moom Mbàkke Kajoor Mbàkke Bawal Daaru salaam ba Touba eh, loolu lépp Cheikh Ibrahima Sane Diagne ba nga àndoon xam ne nag fi la ko woon moom Cheikh Ibrahima Sane Diagne misaal la eh, ci dëgëru pas-pas ak murit gu dëggu ba tax na mu làq li képp ku soobu ci yoonu yàlla di wut te mooy àgg ci yàlla firnde looli eh, mooy bayit yi nga xam ne ku tedd ki di Cheikhul Khadim moo ko bind def ko ci moom Cheikh Ibrahima Sane Diagne moom sëriñ Touba moo bind ci loxol boppam ne jazaaka yaa xillu Ibrahima mawlaaka xayral jasa wal muna daarayka awlaaka لك فاعلم بأنك هندي سوردا أبدا وذاك ربحك في دنيا وأخراك فدم على الصدق والإخلاص مجتهدا في السر والجهر كي tan mu yaakaar bokkoon na ci jëwriin yi ku tedd ki di borom Touba njaarim njëkk a sampal ay daare tarbiya bi mu làqee ngërëmul Serigne Touba di Seexul Xadim ci la ko kooku baax ki def eh, defarekat nga xam ne ci biir tukkib sëriñ bi tarbiya na lu bëree bëri bokk na ci ay jagleem ci yoonu murit muy teenub xaynu rahmati bu barkeel bi ñu xam ci Touba moom Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ moo ko gas moo ko bënn ci loxoom ak njabootam ak waa këram ci nii rek la Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ nekke woon ci la sax diggam ak sëriñ bi ak dëggal ci yoon wi ak way deng nag ci jaamu yàlla bi ko sëriñ tubaa gërëmee ba war koo wi da ko ne bis ni ki tey Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ yàlla gërëm na la yonent bi gërëm na la gërëm naa la waxal loo bëgg ma defal la ko mu ne ko waxtu wu nekk naay nekk ci li nga gën a bëgg di la bëgg rek yow Seexul Xadiim moom Cheikh Ibrahima Sane Diagne sanc na dëkk yu bëri ngir liggéeyal fa ku tedd gi di Seexul Xadiim ak tarbiya taalibe yi nekk fa itam di yan njaboot gi de liggéey di yot ku tedd ki di Seexul Xadiim di dimbali mbindeef yi gannaaw bi ku tedd ki di Seexul Xadiim dikkee njaareem la digal Cheikh Ibrahima Sane Diagne moo jugee Njaañ tuxasi fa moom ca njaareem ànd ak ñoñam mooy mboolem ak njabootam mu daggal ko fi wetam ci bët gànnaaru jumaa ji foofa sax fa la nekk ba ni mu wàccee ab liggéey ci atum tubaab di atum 1918 mu dund ci kaw suuf 68 euh, ans di juróom benn fukki ak juróom-ñett yóbbaale ngërëmul ko tedd ki di Cheikhul Khadim euh, moom Cheikh Ibrahima Sarr Ndiagne sëriñ bi ci boppam moo digle ñu denc ko ci dëkk bu sell ba di Touba Mbacké kon ci gàttal lii rek laa indi woon doon ko tënk ci dunduk jàmbaar jooju mu di Cheikh Ibrahima Sarr Ndiagne jàmbaar ju mag jooju nga xam ne nitug yàlla la woon ab murit la woon noonub saadix boo xam ne ku tedd ki di Cheikhul Khadim firndeeloon na ko ku bëggoon Serigne Touba di Cheikhul Khadim moom Cheikh Ibrahima Sarr Ndiagne Serigne bi itam bëggoon ko ba sàkk woon ci moom mu ñëw dëkk ak moom ci njaarim ba di mu wàcceeb liggéey Cheikh Ibrahima Sarr Ndiagne ngoog yàlla ñu ko yàlla fayal